salaamaaleykum mbokk auditeur auditrice wu réew mi FM dal leen ak jàmm seen émission sans filtre euh, jotaay ndaw ñi la fii ci réew mi FM lay amee crédit bu jot 15 jàpp 16 euh, euh, tey ñu dalal fii ñaari ndaw kenn ki di ji Cheikh Djibril Sène moo di porte parole mouvement Réthiou Fall Macky keneen ki Idrissa Diop. Euh, mouvement xippil xool li fi yi def lu ñu fi fas yéene waxtaanee rek mbokk yi euh, mooy euh, programme bi nga xam ne njiitu réew Macky Sall teg na ko ngir rek jàkkaarloog ndaw ñi muy jokkoo ak mag Macky ñuy laaj est-ce que mooy solution bi ngir mu gagné li nga xam ne moo di confiance ndaw ñi voilà ma ci ànd saa su nekk ak Mor Fall Mor bàyyi la nga ñëw teg mbokk auditeurs yi. Sylvie maa ngi lay nuyu di nuyu auditeur ak auditrice yu réew mi di nuyu aussi ñëpp ñu ñuy suivre suñu plateforme digitale yi réew mi point com ak réew mi officiel di nuyu suñu ñaari invité du jour ki nga xamante ne mooy Idrissa Diop euh, teewal fi mouvement xippi li fi Macky def ki nga xamante ni moom mooy Cheikh euh, euh, teewal fi ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Rëccu Fal Macky donc ñoor war waxtaane lépp loo xamante ni moo ñëw wàllu jeunesse rawatina li nga xamante ni Macky Sall teg na ko ngir waxtaan ak jeunesse bi ñuy laaj ndax loolu mooy waaye bi ngir mën a waxtaan jeunesse ak jafe-jafe yi fi nekk. Mhm. moo nga ñëw ci rubrique actualité. waaw actualité bi dañ koy accentuer ci li nga xamante ni moo xew ca hôpital bi nga xamante ni moom mooy bu euh, Louga donc ak soxna si nga xamante ni moom moo fa faatu di euh, astu soxna donc euh, li nga xamante ni moo ci ne actualité bi muy président Macky Sall mi nga xam dafa exiger ñu ñu def rapport dans les quarante-huit heures donc ça di deme demain au plus tard dañoo mën a wax lan moo am ci li nga xamante ni moom mooy boobu jéey ji fa am donte mhm. sax enquête bi nga xam ne moo njëkk génn dañoo ne négligence ordonnance la génne ci ki nga na wax euh, euh, bi li mu génne moom mooy négligence effectivement am na donc euh, suba donc au plus tard dañoo mën a xam loo xamante ne moom moo duppee ci jafe-jafe yooyu nga xamante ne moo am ci hôpital boobu donte sax defoon nañ ay millions yu bëri ngir tabax li nga xamante ne moom defaraat li nga xamante ne moom mooy maternité ak yeneen mhm. donc mu nekk daal loo xamante ne ñu ngi koy ñaawlu di ko naqarlu euh, ci jafe-jafe yi nga xamante ni hôpital boobu c'est pas la première fois yooyu am fa am na fa ay soxna yoo xamante ni jot nañ fa ñàkk seen bakkan ci yu ni mel euh, soxna si ñu xam ne sax moom moo génn àdduna ñàkkoon na fa tamit doomam ci koo xamante ni prématuré la woon ci euh, at yee ñu génn donc mu nekk loo xamante daal fii suba daal nañ xam fan la mbir mi di mujjee ak rapport bi nga xamante ni le président Macky Sall exige na ko ngir ñu jox ko ko daar daar dans mhm. a fës Euh, Cheikh sen moo di porte parole mouvement Réccu Fal Macky Cheikh ma bàyyi la nga nuyoo teeg mbokk auditeur Rewmi FM. Euh, salaamaaleykum euh, waa Sénégal salaamaaleykum ñëpp ñuy teewlu émission bi di la nuyu aussi yow Sylvie ak Mor ak sama mm-hmm. co-débatteur bi. Mm-hmm. di ñaanal ñëpp jaamu di encore une fois baalu ñëpp ak di leen baal ak ci weeru koor bi ñu nekk. Mm-hmm. di ñaan yàlla aussi euh, mu doon weer boo xamante ne ni tawféex lay wàccee ci réew mi ba lépp lu ñu yaakaar ne xëy na dinañ ko am ci développement am ko ci. Mm-hmm. merci beaucoup Cheikh Idrissa Diop yaa fi toogal xippil xool li fi mag def ma bàyyi la nga ñëw ci mbokk auditeur Rewmi FM. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk turam ak santam di la nuyu yow Sylvie. di nuyu Mor Fall di nuyu aussi sama co bi di nuyu askanu Sénégal gépp di ko commencer par son excellence monsieur le président de la république euh, Macky Sall di nuyu euh, gox bi ma jugee nga xam ne muy département de Kër Massar euh, di nuyu sama sama sœur yeeg sama frère yi ñëpp ah samay am di jàmm yéeg ñëpp maa ngi leen di nuyu. Hmm. jërëjëf. a beaucoup ñu bàyyi leen xanaa bi nga xam ne war ko sànni ci actualité bi fi euh, donc loolu du loo xamante ni xëy na ñu ngi koy ñu ngi koy soog a dégg. Hmm. peut-être yàgg nañ ko dégg. Hmm. te boo xoolee bi affaire yi coow li jógee da ngay gis ku ci nekk di ñëw di wax euh, li jot a dund ci yenn yenn hôpitaux yi. Hmm. donc mu doon loo xamante ni luñ yàgg luñ yàgg ñaawlu la luñ yàgg euh, sàkku la ngir ñu am ci loo xamante ni xëy na solution dina ci am. waaye Sénégal dafa doon réew moo xamante ni euh, pour ñu. mu régler yenn mbir yi il foog mu jéggi dayoo Euh, moo tax xëy na waaye ñu ngi ñaan yàlla aussi mu jaaree fi doon loo xamante ne nii dinañ ko saafara ba mm-hmm. loolu dootul amati ndax wax dëgg neex yàlla lu ñëpp di ñaawlu la. Mm-hmm. te voilà muy corps euh, professionnel bi nekk ci hôpital bi yéene wuñ leen erreur boobu noonu. Mm-hmm. waaye it ñu bàyyi xel ak mboolem ñëpp ñoo xamante nii rek ñu ngi ci corps boobu ñu bàyyi xel ne ak moom dafa dafa dafa foo rawatina bakkan. Euh, am na fu nit ki di toll ci voilà dafay laaj. nga taxawu ko taxaw bu mucc ayib. d'accord am na solo Idrissa Diop. waaw euh, man li may wax ni mooy comme ni ko sénégalais yëpp defee mooy ñaaw lu mbir mi ñaaw lu mbir mi euh, dans la mesure où képp ku ñu jóge sa kër ñëw hôpital j'espère que ni accueil bi rek moo war a gën a mën a rafet. donc comme ni ko président de la république euh, waxee sàkko su 48 heures ñu mën a xam ñu defal ko rapport mu mën a xam. Euh, kan mooy kan moo tooñ wala ku tooñul donc en tout cas ma sénégalais yépp ñoo yam foofu di ñaawlu mhm. di ko ñaawlu mhm. di ñaan euh, corps médical bi donte euh, service boo dem yaa toujours des brebis galeuses mhm. mais di ñaan ñu gën a farlu ci accueil bi opito yi ñu gën a farlu ci accueil bi loolu daal laa leen di ñaan merci beaucoup Cheikh kon nag euh, dañuy daal di dugg ci suñu euh, waxtaan maanaam euh, jokkoo ak Macky bi ndax mooy solution bi ngir njiitu réew Macky Sall jeunesse bi amaat a confiance ci moom ngeen nekk ñaari ndaw yéen a bokkoon parti waaye mu dem ba ca biir am ñi rëccu ñeene xippil xool man sama laaj bu njëkk ñi di rëccu man ñoom laay njëkk laaj da ngeen dem ba ca biir ngeen rëccu da ngeen àndoon ak njiitu réew Macky Sall nu mu fa demee noonu. donc euh, turu mouvement bi rek euh, boo ko déggee di nga xam biir yi nan la nan la tëddee. Mm. ndax boo nee rëccu rek xëy na dafa doon koo xamante mm. ni amoon na yaakaar. Mm, voilà ba ba ba ba jusqu'à dernier moment xëy na yaakaar boobu noonu tas. Mm-hmm. Euh, te liñ ci mën a indi comme loo xamante ni peut-être euh, exemple la buy wane ne buy confirmer que ni yaakaar bu tas la. Mm-hmm. Euh, bëri na ndax depuis 2012 ba 2016 bi nga xamante ni moom la mouvement bi juddu 2019 mu am. am benn explosion ci média yi. Mhm. donc mun nañ ci indi ay leeral yu bëri yoo xamante ni euh, yi confirmer que ni rëccu boobu noonu ñuy wax euh, bien vrai lu lu lu am la te doonu tamit ñun rek. Mhm. ñoo ñoo ñoo ñoo rëccu xëy na ñun ñoo gën a fës. Mhm. mais réew mi yëpp euh, fépp foo dem fu nekk rëccu bi dafa dafa dafa doon loo xamante ni lu lu lu am la. Mm. mais naka la tasee seen yaakaar. ci ci yan fànn la tase seen yaakaar lu tax ngeen réccu damay faral di wax léeg-léeg ma ne buñ sukkandikoo ci benn benn programme mu Macky Sall rek euh, réccu mun nañ ko tudd mm-hmm. muy yoonu yokkute mm-hmm. yoonu yokkute bi en 2012 man souvent fa laay gën a appuyé woo pourquoi parce que euh, yoonu yokkute boobu noonu bu réussiroon tey euh, Macky Sall n'aura plus besoin di di di di def jokkoo ak Macky wala di def xëyu ndaw ñeek programme yooyu noonu yëpp donc dootul amati sance euh, bu mu koy tegee euh, parce que ci biir yoonu yokkute boobu noonu di nga ci fekk programme boo xamante ne ni buñ ko appliqué woon vraiment problème emploi question emploi dinañ ko régler bu yàgg donc loolu bokk na ci li ñuy li ñuy rëccu Euh, bi ci tegu mooy euh, ba tey ci yoonu yokkute bi nga xamante ni man souvent damay ne loolu kese kese kese mm-hmm. mun na doon point de débat. Mm-hmm. Euh, ci ci ci ci gestion Macky Sall nga dem fekk fa benn point boo xamante nii da ko jagle woon jigéen ñi mais jusqu'à présent booy booy xool tey jigéen ñi bien vrai que ni am na as boo xamante ni xëy na nit ñaa ngi koy def. Euh, muy yenn parti politique yeeg yenn mouvement yi yenn yenn yenn société ci société civile bi ñu ngi koy def euh, état bi aussi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi def dara mais liñ ko doon xaaree ba tey dafa dafa dafa yeggul mm-hmm. dafa dafa defagul minimum bi sax defagu ko mm-hmm. Mm-hmm. donc de ce fait euh, buñ nee rëccu rek xëy na ñëpp mun nañu ko nangul te du ñun kese sax encore une fois ñoo koy ñooy ñooy ñooy bëri na ñu ko faloon 2012 voilà gis nga 2019 biñ ñëwee élection bien vrai que ni moom moom moo ko jëlaat mais gis nga quota bi dafa wàcc électorat dafa dafa dafa dafa wàcc kon ça veut que ni euh, du mouvement rëccu fal Macky kese mooy rëccu li tax ñu faloon Macky en mais Sénégal tey ñëpp ay rëccu li tax ñu faloon Macky en 2012. Mm-hmm. ñi ko joxoon seconde chance en 2019. Mm-hmm. tey booy xool tamit ñu ci bëri ñu ngi koy rëccu. Mm-hmm. Euh, boo xoolee li xew ci ci ci ci élection locale yi. di nga gis preuve boobu doon. Euh, te bientôt élection législative mu ngi ñëwaat. di nga gisaat confirmation buy wane que ni réew mi vraiment euh, rëccu nañ li ñu fale woon Macky. <laughs> merci Cheikh ma dem ci Idrissa yéen ngeen ne xippil xool li fi mag i def euh, boo leen xippil day mel ni nit yi dañoo mag Macky daa def kenn gisul li mu def. waa jërëjëf euh, fi ma doon euh, njëkkee laa fàtte woon. Mm-hmm. di gërëm sama benn mag boo xam ne fi lay liggéey mm-hmm. mooy suñu oustaz Saliou ñaŋ mm-hmm. ma koy nuyu bu baax a baax a baax mm-hmm. wax dëgg yàlla mm-hmm. di nuyu aussi euh, président LDR Yeesal euh, Modou Diagne Fada di nuyu Mahfous Balde ba kamara ñëpp maa ngi leen di nuyu daal di nuyu aussi euh, ñëpp ñi may déglu waaw di wax ni gis nga le président Macky Sall depuis suñu indépendance ba léegi li mu fi def amul benn président bu ko fi def gis nga communication moo si xaw a des mais bu ñu gisee ni président Macky Sall 2012 jusqu'à 2022 réalisation yi mu fi def emploi yi mu fi créer et aussi ñuy rappeler le rôle de l'État du créer des emplois du joxe emploi du moins rôle état mooy créer les voies et moyens qui pourront permettre à sa jeunesse plus précisément à sa population d'avoir de pistes yoo xam ni mën na nanoo am liggéey te président Macky Sall lu jugu si depuis 2012 bi mu taxawee ba léegi. Mm-hmm. exemple bi may joxe bi bi gën a ndaw muy train express résional bi train express régional bi ñaata jeunes sénégalais ñoo fay liggéey emplois des jeunes euh, yi nga xam ni comme par exemple ñu jël euh, euh, enseignant corps professoral ñaata enseignant lañ recruter. mais jeunes yi ñun euh, jeunes yi ñun ñoo am benn problème ban problème mooy dañuy bëgg tey ñu ji tey mu ñor tey ñu witti tey lekk tey processus la état processus la état du da ngay ñëw rek mën a résoudre problème à cent pour cent le président Macky Sall dafa woote euh, horizon deux mille trente cinq donc il est sur le bon chemin pour aider sa jeunesse président Macky Sall depuis 2012 bi mu ñëwee ba léegi jàppale jeunesse sam moo tax mu nekk fi vraiment ñu koy gërëm ci loolu. di ko sant ci loolu. di wax ni aussi communication peut-être jeunes yi dañoo amul communication bu baax parce que. Euh, euh, man en tant que jeune duma xaar informa information ñëw ci man mais damay dem jëli information xool président lan la def fii xool planification gouvernement bi lan la mais taxaw di wax di wax di wax di wax te xamoo président lan la lan la lan la fi defagum wala nangam en tout cas li ma li ma mën a résumer daal mooy que ni le président de la république mag ngi si yoon bu baax bi. Mm-hmm. li ko ñor mooy xool nan la ñuy def pour ñoŋal askanu Sénégal ñoŋ si seen wér-gi-yaram si liggéeyu jeunes yi si si si si jàng bi si mbay mi si napp bi si lépp daal. fànn yëpp te président de la république macha allah képp ku ko képp ku dëkk Sénégal xam nga ni président de la république mu ngi jéem lu mu mën ak lu mu mënul. pour sa jeunesse. Mhm. Mhm. ndax yéen da ngeen jàpp ni mi ngi liggéey nit ñoo gëm bañ a gis moo tax. waaw xam nga euh, lépp loo gis communication la mën damay gëm ni président de la république ma ngi def mais service yi nga xam ne ñoom ñoo yor communication am. Mm-hmm. ñoom ñoo war a gën a jénn ci média bi mm-hmm. gën a communiquer li président di def mm-hmm. ndax quand on parle euh, ndaw bala ngaa wax ndaw xaaral ma jox emploi ndaw formation ma ngi fi sur euh, de l'enseignement supérieur muy euh, Mary Teuw Niane def na fi centre de recherche et d'essai boo xam ni du ministère de l'enseignement supérieur la alloué wu ma ngi exemple ma joxe département bi nga xam ni foofu laa dëkkoon muy département de Pikine si biir mairie de la ville de Pikine bi centre de recherche et d'essai ma ngi fa boo xam ne day former jeunes yi si si si bureautique si entrepreneuriat si base de données si lépp maanaam fànn yépp ñoo ñoo fay kii gis nga jeune euh, doo ñëw rek ni jox ma liggéey mais il faut nga am buñ la joxee liggéey est-ce que am nga formation boo xam ni mën na laa téye pour nga mën a doxal liggéey boobu noonu donc président Macky Sall si formation bi la gën a ëppesantiru tiiru mais Idriss est-ce que nekkul problème communication bi nga wax est-ce que nekkul dafa féete boor parce que je pense que communication bi ñu wax est-ce que c'est beaucoup plus axé si ñoom ñi nga xamante ne euh, ñoo yéen ma yéen a ànd ak moom yéen a jot information yi que euh, jeunesse yi nga xamante ne peut-être que dañoo wax ne bokkuñu ànd ànd ñoom moom ñoom duñu jot yi information yi peut-être que est-ce que nekkul loolu moo nekk euh, le problème majeur bi nga xamante ne moo tax ñu ne Macky liggéeyul deful dara ci ndaw ñi man giseewuma foofu parce que man en tant que Idrissa Diop dama dem vers les l' information vers l' information xam nga mënoo toog sa kër bëgg am information yee yëpp da ngay dem boo soxlaa liggéey am na euh, service yoo xam ne euh, président de la république son excellence Macky teg na ko fa da ngay dem jege ñooñu xool liggéey li ñu la wax ba xam am na wala amul boo demee euh, emploi des jeunes ANPEJ ma ngi fi nga def sa projet bien bien bien bien défini bien déterminé nga yóbbu fa sa projet. bu ñu xoolee c'est un projet palpable dan lay financer DER ma ngi fa délégation à l'entrepreneuriat rapide aussi jeunes yi bu ñu bu ñu foog ni ñun ñépp ci bureau lañ mën a toog d'abord auto emploi gëm naa ni li muy générer moo ëpp junni yoon que ñi ngi fonctionnaire de l'État donc ñun jeunes yi ñu jéem a dem former wu d'abord xool structure de formation yi mm-hmm. ñu dem fa former wu mm-hmm. en plus Euh, leneen lii war a ñëw muy financement muy leneen dina war a dina ñëw ndànk-ndànk. Mhm. mais bu ñu bëggee lépp lépp lépp doonandoo si si benn fan dañuy nax suñu bopp rekk amul benn réew. Mhm. dans le monde boo xam ni euh, réussir nga euh, emploi jeunes totalement amul mhm. benn amul benn réew. d'accord gis nañ depuis le début du mois quelques semaines initié na programme Jokko ak Macky. Euh, gis nañu manifestation yi nga xamoon moo fi xewoon daaw au mois de mars euh, gis nañ jeunes yi ñu génne ci mbedd bi wane seen mécontentement euh, ni am ci gouvernement bi amuñu liggéey liggéey amul ñu ci bëri génne di yàqate may laaj est-ce que jokkoo ak Macky bi du moyen pour moom mu racheter wu ak ndaw ñi Cheikh lay commencer duma la ne déet ah duma la ne déet ndax euh, bi loolu amee mois de mars boobu noonu lim njëkk a def mooy woo ndaw ñi euh, centre de commerce nan la ñuy def ba mu am euh, bëri na xëy mais yooyu yëpp ay moyen la yoo xamante nii xëy na pour jéem fësal liggéey boo deful la te loolu noonu nax sa bopp laa koy tuddee ndax tey boo jëlee enseignant yooyu noonu mu tudd wala du ma balaa maa ñëw ci enseignant yi sax damay njëkk a ñëw ci création d' emploi mhm. parce que man j'évolue dans le secteur privé mhm. donc question euh, création emploi xëy na euh, euh, tout néew ma ci wala mhm. néewuma ci xam-xam ndax boo doonee entrepreneur donc mun nga comprendre question boobu noonu mun nga comprendre naka la ñuy résoudre question boobu noonu te formation yooyu noonu ñuy dig ndaw ñi xoolal tey li Ageroute di jël. Mm-hmm. Ageroute mu ngi fi xoolal tey day recruter ay jeunes mais après est-ce que dina am suivi du am suivi. Euh, ma jox la benn agence boo xamante ne nii tey euh, ñëpp dégg nañ ci coow yi muy ASP. Mm-hmm. Euh, kan moo leen kere kan moo créé agence boobu noonu Macky moo ko fi indi bi mu faloo après 2012 mais tey lan mooy seen problème lan la ñuy jooy. 2012 ba léegi wala depuis création ASP ba léegi ASP euh, cinquante mille francs lay fay ko. Mhm. DG ASP di fay ko cinq million xoolal loolu noonu cinq million boobu noonu ñaata ASP nga ci mën a fay. ASP euh, amuñ possibilité buñ buñ buñ buñ feebaree ñu faj leen. ASP yooyu noonu amuñ benn amul benn kii boo situation boo xamante nii bu normal wala condition bu normal buñ ñu leen tàj mhm. léegi emploi yooyu noonu wala formation yooyu noonu ñuy defalaat jeunes yi pour yóbbu leen pour jox leen ay emploi yoo xamante ni dalay leer na lii du am kon la teg ci condition bu normal mm-hmm. ban jeune moo koy nangu mm-hmm. buñ nee aussi euh, euh, euh, horizon deux mille deux mille trente cinq xaw man nan lañ ko tuddee depuis deux mille douze ba deux mille dix neuf c' est sept ans mm-hmm. depuis deux mille douze ba deux mille dix fexe ba résoudre benn problème ci côté emploi nga ne dañuy former jeunes yi formation sept ans boo defee sept ans université doctorat ngay doon wala nga doon docteur parce que médecine bi nga xamante nii moo gën a jafe sept ans ngay def mm-hmm. huitième année bi nga commencé nekk en mm-hmm. fonction mm-hmm. donc sept ans nga toog sept ans yoo xamante ni da ngay ne formation ci li mu wax parce que loolu la wax sànq nga ñëwaat ñu joxaat la cinq ans nga ne formation kañ la nit ñi di liggéey kañ la jeunes yi di liggéey c'est vrai que ni jeune yëpp munuñ munuñ munuñ munuñ am liggéey jeunes yëpp munuñ am xëy euh, jeunes yëpp aussi munuñ toog ci bureau da ngay gis man bi ma teelee comprendre loolu laa xam ne li ciy génnee jeune bi mooy dem. nga demal sa bopp demal sa bopp. parce que benn boo xaaree état di la defal formation nga génn formation bi boo paree lan lañ lay laaj mm-hmm. expérience cinq ans. Mm-hmm. xoolal euh, offre d'emploi yi ñuy publier. Mm-hmm. expérience cinq ans lañ lay laaj. dañ lay laaj deux ans wala trois ans de formation. yooyu noonu nga wax balaa ngaa doon fonctionnaire à l'âge de trente trente cinq ans nga koy doon imagineel yow nga doon nga nekk ci suuf. à bas l'échelle ba 35 ans ñaata moo la desee pour nga pour nga pour nga pour nga pour nga doon mag ñaata moo la desee pour nga war a taxawal kër ñaat lan ngay xaar pour mun a yor sa bopp yooyu noonu yëpp c'est-à-dire ce mm-hmm. sont des questions yoo xamante ne nii yu ñu war a yu ñu war a euh, répondre la ba pare soog a mun a dem ci affaire emploi des jeunes mm-hmm. parce que loolu yëpp bu tànk amul solution munuñ fexe ba euh, jox jeunes yi lu leen doy mm-hmm. jeunes yi ñoom ñëpp bëgg xëy jeunes yi xeebuñ dara le preuve mooy gis nga xaaju jeunes yu bëri ñu ngi ci ci pari foot bi lan la ñuy gagné benn 500 francs wala benn 2000 francs chaque jour mais ñooñu xeebuñu dara ñi nekk ci corps ASP bi xeebuñ dara. mais c'est-à-dire condition yi ñu leen di tegal après moom lañu mënul comprendre. yow mënoo ne ASP nga biir Dakar. yaa ngi dëkk ba Kaolack wala yaa ngi dëkk ba feneen ñoo doon ASP biir Dakar di fayee cinquante mille cinquante mille yooyu weer dee nga bugg cee fay location. Euh, bëgg cee euh, xool loo yoree sa bopp. Mhm. bëgg cee xool loo yónnee njaboot ji loolu tamit euh, dafa xaw a doy waar. mais comprendre moo tax mu bëgg a andiwaat jeunes yi pour waxtaan ak ñoom parce que je pense que mun nañu wax ne Macky Sall moo nekk a informé ci ci biir Sénégal est-ce que nekkul jafe-jafe yooyu rek la la la dajale ak li xewoon ci marché bi mu woo leen ngir mën a waxtaan ak ñoom ñoom aussi ñu ñu ñu ñu wax seen jafe-jafe parce que moo nekk sax li nga xamante ne moom mooy dayu jokkoo ak Macky bi est-ce que nekkul comprendre moo tax mu jël euh, euh, méthode boobu parce que Sénégal pour nga pour nga régler yenn il faut nga jàkkaarloo nit ñi laaj leen seen euh, jafe-jafe lan la. d'accord xam nga sànq dafa souligner problème communication problème communication ci gestion Macky Sall mm-hmm. peut-être ñi yor yenn services yi ñoo waroon véhiculer communication bi ma ñëpp jot ci. Mm-hmm. mais loolu boo saa yoo ko souligner problème boobu soo ko souligner ci côté gestion dafay fekk ne un bon manager nekk fa. parce que manager li mu war arme bi gën a puissant c'est la communication ci communi communication bu réussirul dara du réussir donc déjà moom su lu ñu ne ne am na benn problème ci côté emploi mooy lan mooy communication mm-hmm. donc euh, euh, euh, loolu noonu tey Mor buñ ko buñ ko buñ ko réglé wul dara du sotti étant manager tey su ma yoroon suma structure ma fixé benn objectif bu bees nouveau objectif ne objectif bii laa bëgg a atteindre mais suma collègues yi suma euh, collaborateurs yi nga xamante ni ñoo tegu ci man su ma leen joxe communication bi su ma leen communiquer ne leen lii mooy suma objectif hmm. ñoom dañoo lan lañ war a def dañoo war a tourner waat dawal communication boobu à leurs donné ñu topp ci ñoom donc communication boobu noonu bu jàllut subordonnés yi duñ mun a exécuter mission bi ñu war a bi ñu war a bi ñu war a def. Mhm. donc loolu euh, da nga koy xool xam ne vraiment euh, boo koy boo koy tënk da ngay ne mauvaise gestion. Mhm. kon yow jokkoo ak màkk bi jàpp nga ni euh, du solution. du solution parce que solution depuis 2012 mu ngi mu ngi mu ngi teg ay programme pour ndaw ñi chaque jour échec. chaque mhm. jour échec donc mënuñ xaar ba mënu toogaat ba euh, deux ans ñuy xaar élection présidentielle. muy 2024. Mhm. mu bëgg indiwaat beneen programme. loolu mënul nekk parce que. mënul koo réussir. seen yaakaar moo tas daal yaakaar bi tas na te boo ko xoolee xam ne lii it mënatul nekk. d' accord euh, ñu dem ci Idrissa Idrissa yow nga jox ñu rek sa xalaat ci jokkoo ak Macky bi euh, tenté na lu ne ay programme yu bëri pour ndaw ñi euh, bii moo ci mujj jokkoo ak Macky bi nga xam ne directement lay daal di waxtaan ak ndaw ñi xam seen i jafe-jafe mu jéem ko saafara yow ndax jàpp nga ni solution la ngir mu gagné confiance wu ndaw ñi. waaw defe naa lu baax la jokkoo ak ndaw ñi. président de la république son excellence monsieur Macky Sall defe naa euh, li nga xam ni moom lay def depuis 2012 moom la wane waat jox gëdd joxaat gëdd ndawam parce que moom ndaw da koo yitteel donc sama cola co-débatteur sànq ma ngi souligner ci ASP yi. Mm-hmm. Euh, man salaire wu jàmbur du ma fa dugg. Mhm. franchement parce que salaire c'est sacré quoi man duma dugg salaire jàmbur di xawi sutura jàmbur. Mhm. donc euh, gis nga président de la république son excellence Macky Sall bi mu ñëwee. dafa en 2012 bi mu ñëwee dafa xam ni jeunes yu bëri am na ja njàng mais ils ne sont pas opérationnels boo jëlee 60 pour cent. de la jeunesse sénégalaise. Mm-hmm. ils sont diplômés mais amuñu benn formation qualifiante boo xam ni mën na leen permettre ñu ñu ñu. mu ni xaaral ma créer corps ASP agent de sécurité et de proximité. Mm-hmm. bi mu ko créer pour jàppale jeunes yi. Mm-hmm. jàppale population sénégalaise yi comment jeune boo gis boo xam ni mu ngi woon ci mbedd yi di taxawaalu. wala mu nekk di agressé wala nangam. Mhm. président de la république jël jeunes yooyu yépp ni leen kaay leen ma créer leen emploi boo xam ni jàppandi la gis nga ASP jàppandi la. Mhm. donc président de la république solutionné na solutionné na problème yu bëri muy. muy agression muy leneen ak leneen ak leneen ñi nga xam ne ñoo ngi woon ci quartier yi attaaye la ñuy def ah? ñooñu ñëpp mu xëcc leen def leen ci agence de sécurité et de proximité dama gëm ni président de la république bu defee lu baax da ngay tax baax la gis nga euh, amul benn pays boo xam ni mën nga matal lépp y toujours des manquement mais nan ngay def pour parfaire les manquement mais président de la république képp koo xam ni yaa ngi yeewoo Sénégal nga wax ko ak nga ñàkk koo wax xam nga ni président ma ngi jàppale sa jeunesse donc waxtaan bi nga xam ni ma ngi koy def pour jege jeunes yi président de la république depuis bi ñu jugee 23 mars bi. Mhm. lu tax mu ni jeunes bi dégg naa leen parce que dañoo jugee ci pandémie pandémie ñu jugee fa couvre fa am ñu xam ni metti na torop pour pour pour nga mën a euh, xëy euh, banlieue dem Dakar metti na torop. jeunes yi looloo tax ñu génn jeunes yi parce que dund bi metti woon na couvre bi metti woon na pandémie bi sonaloon na leen looloo tax jeunes yi génn mm-hmm. mais président de la république le 23 mars bi après le 23 mars bi dafa taxaw ni jeunesse bi man comprendre naa leen xam naa ni li ngeen doon jooytu metti na torop man mi nga xam ni man may seen i waajur man mi nga xam ni man maay seen njiit man mi nga xam ni man maay seen kilifa dégg naa li ngeen wax te dinaa si def saafara mu jël 5000 enseignants 5000 enseignants mu def ko recruitement def ko recrutement donc euh, taux taux de pauvreté euh, de de chômage bi nga xam ni amoon na ñu wàññi ci 5000 ñoo xam ni ñoo ngi daan seen doole waxuma laak yeneen emploi yi nga xam ni créé nañ ko li ma doon wax train express régional bi ñaata emploi la généré ñaata emploi lay généré te ñun ñëpp ay sénégalais lañ ah. boo fa demee ñiy jaay ticket beeg ñi lay wax yéegal ci train beeg ñëpp ay sénégalais lañ. Mhm. ñaata emploi la ciy def. donc dafa dem ba euh, dans son gouvernement dans son communication bi dafay dafay gën a law par exemple ñu jël au niveau de département de Kër Massar nga xam ni le ministre de l'économie di plan et de la coopération euh, Amadou Hott moo fa nekk nga xam ni dafa créer benn centre tuddee ko Sidi ot centre boo xam ni. socio éducatif la. Hmm. jeunes yi fa la ñuy mën a dajaloo di waxtaan. saa bu ñu soxlaa ministre bi ministre bi répondre leen ñu xam fan la affaire bi toll gis nga coloration politique amul foofu président de la république wootewul coloration politique président de la république jeunesse su sénégalaise la wax jeune su Sénégal bi ñépp ñoo ko soxal amul kii euh, APR la bokk kii PDS la bokk jeunesse Sénégal la wax képp ku yeewoo Sénégal nekk jeune président de la république ubbil na la buntam gouvernement bi ubbil na la buntam ñun jeunes yi nag ñun ñoo war a xam ni ñun ñoo war a euh, euh, euh, relever le défi comment mënuñoo wax ni ñun jeunes yi saa bu ñu xëyee rek waaw jeune fougue de la jeunesse nangam nangam mais da ngay jaar ci sa grand yi ñi nga xam ni jaar na fenn au au plus bas de l'échelle bi mu ko waxee noonu sànq ñu wax la fii ngay teg sa tànk tete la nàmpal la ba nga mën a atteindre à tes objectifs moom li euh, mu wax léegi nee na euh, entrepreneuriat entrepreneuriat bu ñu ko xamee fii ci Sénégal ginnaaw yàlla président de la république la son excellence. wala est-ce que du moo leen ci <laughs> waaw président de la république xam nga euh, doon fonctionnaire. Mhm. du ñépp a ko mën a doon mais jeunes yi ñu mën a. comme formation yi ma doon wax def formation mbay maa ngi fi mbay mi lan moo ko ëpp xaalis dara ëpp ko xaalis pourtant tool yaa ngi nii jëlal di dem fii ba Touba wala ngay dem fii ba Kaolack wala ngay dem fii ba Kédougou wala Tambacounda. Mhm. mais des terres euh, incultivables ñoo fa nekk terres yoo xam ni ñun jeunes yi mënoon na noo dellu foofu dem bay te li ngay am ci bay bi doo ko am ci fonction publique bi may wax ni jeunes yi di sensibiliser sama bopp. di sensibiliser euh, jeunesse sénégalaise que ñu gën a gëm seen bopp nan la ñuy gënee gëmee seen bopp mooy teg nañ fi un président de la république am si moom yaakaar moo tax ñu falaat ko 2019 président de la république yaakaar boobu ñu am si moom depuis 2019 ba léegi yaakaar boobu dara dara dara yàquwu ci. mais ma laaj la leen ci li nga xam ne mooy jokkoo makki parce que jokkoo makki bi euh, daanaka jeunes yu bëri sax yëguñu euh, mbir boobu parce que amoon fi nga xamante ne moom mooy Kër Massar ak ak Pikine ñu boole jeunes yëpp mais la plupart des jeunes yi nga ne bu leen laajee ne leen euh, mooy jokkoo makki dañu mooy lan. est-ce que nekkul ne loolu aussi euh, mbir mi da koo def juste rek une sorte de récupération de mhm. de sa jeunesse parce que à chaque fois ñoo ngi dégg ay euh, ay les frustrés de les les APR rouge lii ak lii ak lii est-ce que nekkul loolu loolu moo am ci biir mu jéem a récupérer troupe bi nga xamante ne ñoom la amoon ci biir jeunesse am euh, ñeneen ñi mu jéem a xool naka lay jéem xool nu muy defee dab daax comme ni ñu koy waxee pour jéem a andi mais mbir mi yëpp da koo def pour ne ñoo ñoo nekk ci moom parce que man jeunes xamuñu sax ban format lañ ko def parce que la plupart mhm. ñu ngi ko defee ne mooy meeru Pikine waaw gis nga jokkook Macky boobu noonu mm, président Macky da koo def uniquement pas pour récupération man giseewuma noonu. Ah, te gëm naa ni. est-ce que récupération parce que. non on parle de la communication war nañu ko jaarale ci télévision yu bëri jaarale ko ci rajo yi ni ñu njëkk mais RTS sa la jaar te RTS la jeune jeune yu bëri duñ ko xool. je ne pense xam nga lan moo tax. Hmm? ñun bu ñu tuddee RTS. yaa ngi si maa ngi si kër sama co-débatteur ma ngi si ñëpp ngi si. Mm-hmm. RTS mooy rajo rajo télévision sénégalaise. Mm-hmm. donc bu ko fa jaaree man gëm naa ni war na ko faa jaarale. mais est-ce jaarale fépp. mais xam nga dama ni euh, nul n'est parfait manquement sac instant day am mais Macky teg na première pas ñun population sénégalaise bi gis nañ ni teg na teg na premier pas ñu ne ko ah président jaaraama. li nga def kontaan nan si mm. mais bu ñu sañoon nga renforcer lii loolu mooy doxal réew réew du question que ni euh, lu nit def rek nga ni baaxul nit day def lu baax nga gën koo encourager pour mu ma gën a mën a def parce que président de la république récupération président de la république du def récupération ku ko xam président de la république xam nga lan lay jaay programme parce que bu fekkee programme rek ay fal Sénégal mm-hmm. ñu xam ni président de la république bu tëddee na nelaw parce que réalisation yu yi ñu soxla Sénégal amul mais nañ jël stade stade stade bi stade bi kan moo ko mus a réussir ku dul président Macky Sall président Macky Sall moo jël euh, suñu rêve bi nga xam ni dañ koo dañ dañ koo amoon muy train express régional musuñu ko woon xalaat suñu réew Sénégal président de la république xam ni dëkk bi metti na Euh, pour jóge banlieue Kër Massar ñëw rallier wu dakaar métti na trop pour jóge Tëngéej rallier wu dakaar métti na trop parfois da ngay gis oto yi pour jóge fii ñu nekk Kastoor bi pour dem euh, Kër Massar ndogu ji problème lay doon mu ni euh, problème transport bi dinaa ko dinaa ko jéem a alléger léegi da ngay gis nit ñoo xam ni dañuy wàcc normalement 5 heures 17 seen service jël train express régional bi 15 minutes la ñuy def ci yoon bi loolu c'est un pas en avant donc war nañ koo gërëmee président Macky Sall war ko ko santé jeunesse bi nag ñoo war a accompagner projet yooyu parce que projet yooyu projet bu ñëw jeunesse sénégalaise moo ci bénéficié wu. jeunesse sénégalaise mooy bénéficié wu ci projet yi ngay gis fii nii yépp muy TER beeg muy ñiy liggéey aéroport rek muy ñiy liggéey stade baak bale balekat baak ñépp jeunesse sénégalaise la donc ñu xool président de la république gën koo ñaan mu gën a renforcer li muy def li muy def ñëpp ci kontaan jeunesse euh, sénégalaise bi la majorité kontaan nañ ci ñu koy gën a ñaax ni ko président fi nga teg sa tànk foofu la. Hmm. ñun jeunesse euh, sénégalaise ñoo ngi derrière vous di la accompagner euh, ci sa mission di xam ni li ci kanam raw li bët. <laughs> kon Cheikh yow jàpp nga ni jokkoo bi dina tax daal jeunesse bi dina dellusiwaat ci moom. waaw man jàpp naa ni jokkoo bi dina tax euh, jeunesse yi delluwaat si moom parce que jeunesse yi jeunesse bi. mais est dina tax mu saafaraal problème parce que genre programme yi yàgg nañ ko fi gis de Idrissa. xam nga euh, gis nga président de la république. day mel ni ay répétition depuis lépp lu mu diggee ma ngi koy def. nañu xool dige yi mu def depuis 2012 président de la république lépp lu mu dige ma ngi koy def président de la république si njàng xale yi ma ngi siy jéem a def président de la république euh, si abri provisoire yi nga doon dégg président de la république ñaata abri pro abri provisoire la la la dindi tabaxal leen fa école yu ñoŋ pour xale yi mën a jàng xam na ni jàng moo yor réew njàng képp ku si teg njàng ak bay képp ku ko teg sa réew jiital ko sa réew réew boobu day dem kanam président de la république enseignement supérieur yi euh, ñaata en fi ngay gis ñu ñu ñu koy tabax dans les universités man université Cheikh Anta Diop bii laa nekkoon def naa fa 6 ans à l'université Cheikh Anta Diop département d'anglais mhm. comprendre donc euh, bu ma duggee actuellement université Cheikh Anta Diop de Dakar man dama naan waa attends man Californie laa nekk wala New York <laughs> xam nga la moo tax may wax loolu parce président de la république ma ngi jàppale jeunes yi euh, amphithéâtre yi mu gën koo rafetal resto yi euh, centre sociale yi mu gën koo ñoŋal da ngay gis université ñun ñaata lañ doon fay ndekki fukk ak juróom lañ doon fay ñaata nga lañ doon fay añ cent cinquante léegi ñaata la ko def ndekki fukki dërëm añ euh, cent franc mais président de la république yooyu yépp aussi pandémie bi bi mu fi ñëwee mais président de la république ñëpp xam na ni am na réew yu bëri yoo xam ne dañoo nërmeelu ci pandémie bi mais président de la république ak jomam ak macha allah gouvernement bi nga xam ni ñoŋ na mu jël euh, son euh, en l'occurrence le ministre de l'économie du plan et de la coopération Amadou Hott bi nga xam ni man dama ko xam bu baax mu jël ko euh, teg ko pour mu recadrer waat économie sénégalaise gën a jàpp ci économie ba population bi bu ñu doon bu ñu waroon yëg 100 pour cent 5 pour cent la ñuy yëg donc 95 pour cent boobu yépp gouvernement bi moo ko teg ci mbaggam rien que pour euh, donner une nouvelle souffle à la population sénégalaise. Mmh. jàpp nga ni euh, Macky la mu diggee woon ba léegi moom mu ngi koy def. Euh, xam nga. ndax diggee yi de. xam nga waa ji sànq euh, dafa tudd ay programme yu riche te programme yooyu noonu ba tey man li ma doon xaar xëy na mu ne euh, recrité nañ temps de jeunes wala tant taux de chômage bi wàcc na nangam ak nangam jox ñu benn chiffre boo xamante ni xëy na dinañ ci mën a dinañ mën a comparer ak euh, avant 2000 2012 mais jusqu'à présent booy déglu programme bu riche ngay ngay ngay ngay ngay ngay dégg mais réalisation zéro problème d'emploi jusqu'à présent amagul solution euh, programme bu riche téewut réew mu ngi mel ni nga doon euh, benn benn benn par exemple benn euh, responsable marketing ñu jox la benn produits produit ne la produit bi vraiment bëgg nañ nga nga nga nga jaay ko ci marché bi nga ñëw taxaw voilà euh, devant tout le monde devant tout le personnel mhm. euh, nga ne waaw affaire yi bu ñu defee nii dina baax est-ce que duñ ko defee nii ba ñëpp apprécier ñëpp kontaan mhm. di la xaar pour nga def nga croiser les bras loolu mun nañ ko xaw a dendaleeg programme bu riche parce que booy xool sànq maa ngi koy wax tudd naa yoonu yokkute bi sànq euh, tuddaat xëy ndaw ñi sànq mhm. nga ñëwaat indiwaat jokkoo euh, ak Macky yooyu noonu yëpp ay programme yoo xamante nii boo ko dégloo da ngay ne ah waa ji kat macha allah kii moom fi muy xalaatee macha allah mais mhm. après réalisation doo gis zéro parce que kon yéen loolu moo leen séduiroon au début au début Sénégal yëpp la séduire mhm. en ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp dañoo dañoo dañoo euh, joxe woon V maanaam d'accord ci euh, yoonu yokkute bi mm-hmm. ñëpp ne ah lii kat macha allah bu ko saay réalisé Sénégal dina toll foo xamante ne nii euh, fi ñu koy xaar dana fa sax weesu. Mm-hmm. en 1960 Sénégal moo gënoon développé si. ngay dem 1960 ba ay année 80 nga gis yéen di ko devancé ndànk-ndànk. Euh, nga ñëw ba temps 2000 nga gis Chine bàyyi ko fi euh, donc mais teewul nga gis Sénégal di ramper benn allure boo xamante ni xëy na faible na mais en 2012 dafa gën a faible daa gën a faible parce que benn euh, xëy na dinaa xaw a génn thème bi tuuti justice bi amatul njaaxaanaay ñaar enseignement boobu noonu mu tudd da ngay gis niveau élèves yi dafa gën a wàcc. lan moo ko waral parce que euh, enseignants yi nekk ci nga ñi nga xamante nii ñoo nekk ci corps boobu noonu gisatuñ seen bopp ci li ñu leen di fay lan la ñuy def dañuy génn dem di xarimat 5000 enseignants yooyu noonu mu wax ne moom la ñu recruter euh, recrutement bi nan la demee nañ ko nañ ko xoolaat. Mm-hmm. ak ñooñu seen avenir. Mm-hmm. lan la parce que koo ci gis tey da da ngay dégg mu ne la man kat dama ci bëgg a def deux ans wala trois ans. lu mu dee dee ma am benn fond boo xamante nii dinaa démarrer suma bopp parce que xam na ne loolu du solution te booy xool enseignant li ko baaree dafa bëri enseignant concours yu bëri dañ ko fay baare yow mënuñ la baare ci concours yu bëri te tu n'as même pas deux la ci concours yu bëri benn ñu baare la ci concours yu bëri yow euh, fi ngay jàngale sax condition yi ñu la teg normal da ngay gis ñoo xamante ni dañuy nekk région Kaolack ñu affecté leen région Matam léegi de ce fait yow ñaata weer wala ñaata temps ngay toog pour gis sa famille loo percé lu nekk yónnee sa famille mais sa dund ñëwagul wax naa ko sànq ci eh, cas ASP sa dund ñëwagul sa location ñëwagul sa yeneen ak yeneen ñëwagul say déplacement ñëwagul parce que am na ñoo gis naa ci ñoo xamante ni nii dañuy dañuy déplacé wu 14 kilomètres wala lu ko ëpp fi ñuy loger ak fi ñuy jàngale ci. xoolal loolu te loolu di nga ko enchaîner voire trois ans yoo xamante ni euh, nga ñëw ci côté mbéy mi mu tudd sànq euh, jamonoy Covid bi euh, am na benn émission bu ma ko waxoon ma ne Sénégal Macky Sall ñi ko entouré bu ñu amoon xel tuuti fii lay jaaree autosuffisance alimentaire bi ñuy tudd Sénégal atteindre ko ndax Covid bi bi muy dugg c'était en mois d'avril mars avril la. boobu ñu ngi waajal mars avril boo ko tuddee zone yu bëri biir Sénégal da ngay dañuy waajal euh, nawet bi euh, donc terre yi mu wax noonu ne moom la Sénégal am pourquoi pas président lancer benn programme boo xamante ni day appuyer béykat yi mais c'est tout à fait le contraire xoolal gerte gi nga xamante ne ni eh, moom la bassin arachidier bi di di di di di produire muy région de Kaolack ak région de Fatick Diourbel Kaffrine gerte googu noonu buñ ko béyee ba pare ñan ñoo koy jënd chinois yi ñoo koy jënd après il faut nga gis gars yi téye seen i loxo. Mhm. Euh, béykat yi yuuxu pour état bi mun a indi solution. Euh, nga demaat ci ci ci ci ci ci ci ci euh, ndox mi muy géej gi suñu géej gi lan moo ci desiti tey lekk yàpp moo gën a yomb nga lekk jën parce que jën dafa cher jamono ji li tax mu cher dafa raar léegi jeunes yi yow joxoo leen xëy ba pare di leen xañ xëy loolu loolu loolu loolu nuñ koy nuñ maanaam nuñ ko mën a jàngatee. Mhm. dina doy waar agence yi nga xamante ne nii tudd na leen sànq ay DER ay ANPEJ agence yooyu noonu agence yooyu euh, tu fais partie de l'APR mais xam naa ne. buñ ci jaatal buñ ñu mayoon benn temps <laughs> benn une de temps naa la woon ne maa gën a maîtriser agence yooyu téeméeri junne yoon. duñu financé. agence yooyu duñu financé kenn. buñ la xam buñ la xamul. agence yooyu noonu daw naa ci léegi mu war a def trois ans parce que en deux mille dix neuf déposé naa avec mes amis euh, projet. Mhm. projet aviculture. jamono jooju noonu ñu ci bëri ñu ngi ñu ngi ñu ngi gisoon njëriñu poussin yi donc ma déposé ci ak ak avec des amis. Mhm. projet bu baax. projet bi man en personne man maa ko bindoon defar ko ba mu baax. donc li ñu soxla woon c' était deux millions cinq cent financement bi deux millions cinq cent la woon donc on avait discuté avec euh, notre maire euh, euh parce que man je suis de Gandiaye. Mhm. Gandiaye la la la la la dëkk région de Kaolack maire bi nekk Gandiaye on avait discuté avec lui à ce que mu jox ñu benn espace boo xamante nii nañ fa mën a euh, implanter suñu projet moom la ñu njëkk a présenter projet bi mu wax ñu ne leen dem leen euh, ANPEJ. il m'avait donné un numéro euh, boo xamante ne nii ci laa waroon contacter daam boobu noonu ANPEJ Kaolack ma contacter daam boobu noonu mu renvoyé ma ANPEJ Dakar ma ne ko d'accord amul problème donc ma def démarche yooyu noonu yëpp. ANPEJ mm-hmm. DER. dara dara sottiwul mais bizarrement bëri na fi jeunes yu may invité koo ci wax ñoom dañuy déposer mais du ñu am financement man loolu jaaxal na ma trop. c'est-à-dire loolu yëpp pour pour pour pour maquiller li nga xamante ni euh, moom la jeunesse bi di réclamer pour voilà ko wax ñu ne la DER a ngi fi. ku wax ñu ne la ANPEJ a ngi fi financement yaa ngi fi. et puis nga ne ay tour la rek. ay ay ay la kese. ay la mais mais mais man doxaguma ba gis ko ne ma DER. mais mais Cheikh la la jeunesse parce que man maa ngi gis ay jigéen dañuy déposer ñu ne financé nañ leen est que problème bi nekkul ne. Euh, institution yooyu dañoo amul confiance ci jeunes parce que jeunes yi dañoo bëgg fort trop ba amuñu confiance jël xaalis di ko jox jeunes yooyu. xaalis yi perte suñu paree naan la xaalis bi xaasu nguur la. man du mujj fenn est-ce que nekkul loolu moo tax institution yooyu dañoo ko dañoo ko financé. man j'ai rédigé un projet récemment yàggul dara boo xamante nii benn daam laa ko defal. Mm-hmm. daam bi elle a cinq ans d' ci côté euh, centre d' appel man maa ko rédiger le projet bi bindal ko ko yóbbul ko ko DER/FJ. Mm-hmm. ñoo ànd jour boobu noonu j'ai le numéro du gars. Mm-hmm. et maa ngi numéro daam bi mu ngi may dégg soriwul. Mm-hmm. ñu dem ba foofu déposer dossier yi. projet bi mu ngi soxla woon benn benn somme bu dix millions moo moo waroon financé ku projet bi donc bi ñu demee li ñu wax daam bi mooy question d' expérience est ce que am nga expérience est ce que mun nga tenir di koo xamante ne ni déjà moom RH euh, diplôme RH la am benn amaat diplôme secrétaire génnaat génnaat iniversité nga koy laaj mu nekk ci milieu boobu noonu cinq ans pendant cinq ans nga koy laaj expérience pendant cinq ans yooyu noonu mu nekk ci millier bi deux dernières années yi cabinet boppam la yoroon demande financement boobu noonu pour renforcer euh, ay matériel am la woon aussi pour gën a euh, ñoŋal euh, cabinet am la woon centre donc nga dem di ko laaj expérience nga dem di laaj confiance foofu noonu effectivement confiance lañ ko lañ lañ lay lay day posé wu léeg-léeg question confiance. Mhm. mais jeune bi nga xamante ne nii tegal na la projet bu baax. Mhm. te financement yooyu moor loo ci xamul léeg dañ lay proposer day ànd ak accompagnement. suivi da koy da koy ànd àndal. Mm. liiral dossier yi liiral document yi. day day norme. day day ànd ak moom. léegi yow naka ngay mm-hmm. naka ngay accompagner nit ki di ko suivre. Mm-hmm. ba pare nga ne kii aw ma ci moom confiance. cest loolu yëpp li muy wone mooy que ni euh, euh, vraiment ni ñu ni ñu tegee affaire yi du noonu affaire yi dañ ko jël rek. voilà nañu régler xëyu ndaw ñi kon nañ ko bàkkale rek gars yi jox leen ay agence et puis ñu ñëw donc mais donc ça c'est pas le problème de Macky Sall mais ñi war def exécution programme ak à qui à qui gère l'État qui est le chef du gouvernement cher merci <laughs> ñetti minutes moo ci des <laughs> Idi ñu bàyyi la nga joxe sa dernier mot waaw xanaa di wax ni boo leen ma ko mayee cinq secondes rek mm-hmm. li muy wax ci euh, financement yi man fonds yëpp dama rédiger sama projet ak sama jabar ñu rédiger suñu projet dem déposer ko FONGIP ñu tontuñu mais actuellement ñoo ngi xaar mais du question dangaa bëgg a déposer tey rek am tey am na ñoo xam ni des milliers de jeunes ñoo xam ne ñoo la fa jiitu dangay bàyyi ñu étudier projet yi projet yi nga xam ni moom lañ gën a am yaakaar commencé nañ leen financer depuis kañ lañ leen commencé financer am na ñoo xam ne ñoo ngi yor seen poulailler am na ñoo xam ne ñoo ngi def maraîchage am na ñoo xam ne ñoo ngi def couture am na ñoo xam ne ñoo ngi def leneen ak leneen ak leneen mais ñun jeunesse sénégalaise dañuy bëgg a déposer tey suba ñu wooñu trois ans mais mais ñooñu financé est-ce que ci ci mouvance personne ordinaire gis nga coloration amul ci financement. Mm-hmm. gis nga concernant euh, réew Macky Sall bi ku si yaakaar ni dangaa bokk APR wala nga bokk mouvance présidentielle tax ñu financé la yaa ngi nax sa bopp. Ah, mais fa wala. mais non mais bëri na si. man maa ngi nii je dans la mouvance présidentielle est-ce que financement boobu boobu jot naa si. jotagoo c'est ak man ak sama soxna. Mhm. kenn jotagul financement. donc bu ñu waxee ni ñi nekk ci mouvement euh, euh, mouvance présidentielle bi rek ay jot kii bi désolé mhm. mais. te daal da ngeen continuer di di wax nañu ñi xippi leen xool li Macky def daal. xippi leen xool li Macky Macky def ñee ñee di rëccu ba léegi. <laughs> rëccu mënu see am <laughs> ndax nañu xippi rek xool. d'accord merci beaucoup. <laughs> waaw euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw di gërëm encore la président Macky Sall di gërëm sama soxna. di gërëm sama yaay di gërëm euh, tout le département de Pikine et le département de Kër Massar. di mhm. gërëm euh, monsieur le ministre Amadou Hott di gërëm euh, Modou Diagne Fada di gërëm ñëpp daal. Mhm. di gërëm sama co-débatteur yéen di leen gërëm ci invitation bi. Mhm. di gërëm Mor Fall di la gërëm yow ci lii. Sylvie ñëpp. merci sa Diop xippil xool li fi Macky def Cheikh ma bàyyi la nga tàggatoo Réccu Fall Macky. voilà di di di leen gërëm eh, yow Sylvie ak ak ak ak Mor. Mm-hmm. ak technicien yi jàpp ci liggéey bi. Eh, di féliciter aussi suma suma co-débatteur parce que voilà. Eh, débat bi teg na ko ci yoon su ma juum la bien mm-hmm. <laughs> vrai que ni argument yi bon dese dese na tuuti mais quand teg na ko ci yoon mm-hmm. donc di gërëm aussi auditeurs yi ak auditrices yi nga xamante ni ñu ngi resté collé voilà sur mi FM di di di gërëm Sénégal yëpp di leen di leen sant ci teewaay bi di kontaan bu baax a baax. merci Cheikh euh, yaa fi toogaloon Reccu Fall Macky Idrissa Diop xipil xool li fi mag ki def ma leen di gërëm bu baax. Euh, seen teewaay fii di gërëm auditeurs yi nga xam ne ñoo doon bàyyi xel ak ñu doon suivre euh, suñuy plateforme digitale di gërëm Bachir Cissé ak Malick Faye ñuy fete woon ci technique bi. ak ci chaîne YouTube bi ak Facebook bi Mor Fall aussi un grand merci voilà Babacar Ndiaye mu ngi ñëw léegi jukki leen xibaar yi.